di nuyu yéen ñëpp seen tour ak seen euh, sant euh, di wax ni que tàmbali nañu liggéey bi tey à partir de de dix sept heures trente euh, mën naa wax ni que vingt joueurs ñoo si si vingt six joueurs yéen nañu yéen nañu ko sélectionné vingt joueurs ñoo fi nekk comme di ngeen ko gisee commencé nañu liggéey bi normalement dinañ fi toog fii Sénégal pendant une semaine pour préparer ñaari match yi nga xam ne nañu war a jouer fële ci Cotonou Bénin ak beneen match bi ñu war a jouer contre Brésil fële ci ci Lisbonne restant équipe bi dinañu dinañu rejoindre euh, équipe bi à partir de suba ak ginnaaw suba mën naa wax ne que fii rek ñaari fan wala ñetti fan vraiment dinañu am l' ensemble des groupes yoo xam ne l' ensemble équipe bi dinañ teew vraiment pour que liggéey bi gën a dem ci kanam. Fatoumata. mooy xanaa kon tey nga wax ñu. Euh, solo bi nga xam ni mooy joué ji ay match comme ak Brésil nga xam ni dina nekk loo xam ni euh, dina baax ci équipe Sénégal bi mais également wax ni euh, ci juróomeelu journée bi ñu jëm nga xam ni euh, Coupe d'Afrique bi ñu jëm la mu doon loo xam ni day day day day jaadu Sénégal dina téye position puisque moom mooy li nga xam ni mooy ndamu Coupe d'Afrique bi. waaw ñaari match yi comme na ma ko waxee sànq rek je crois que ñaari match yu am solo la daanaka mën nañu wax ni que euh, peut-être que ñen ñi mën nañ gisee ni que ñaari match yi du ay match yoo xam ne ay match en jeu la comme ni ma ko waxee rek euh, c'est important tamit que si genre match yi ñu mën a euh, may chance yenn xale yoo xam ne amuñu habitude gis leen tey yaakaar naa ni que match Cotonou bi ko match Bénin bi nga xam ne match bu am importance la pour pour Bénin et pour pour ñun tamit ñu mën a may chance xale yi nga xam ne amuñu habitude jouer mais contre Brésil tamit mën naa wax ne que mën nañu changer équipe bi tamit xëy na ñan nañoo amoon habitude gis ñu jouer di euh, nga xam ne Sénégal yi yëpp xam nañ leen je crois que dinañ leen bay de côté ñu indi ñeneen ñoo xam ne tamit mën euh, nañu wane war nañ mën a wane seen mënaay je crois que loolu mooy équipe tey du 11 joueurs rek mais pratiquement 23 joueurs yoo xam ne wala 18 19 20 joueurs yoo xam ne bu ñu amee problème mën nañu am yaakaar ci ñoom. waaw. Euh, Malang Sané Dakar 24 info coach question bi may laaj mooy euh, dañ fi wax Maroc bu ñu waxee Maroc suñu xel day dem ci Ligue des champions africaine day rejoindre question Sékou bi. Mhm. ñu xam ne doomu Sénégal mi ngi fa joué daaw championnat Sénégal am 13 buts jël meilleur buteur dem foofu pour nekk meilleur buteur muy Bouli Junior Sambou mhm. est-ce que bi Boulaye gaañoo sa xel demaatul ci Bouli Junior Sambou ak ci Mbaye Diagne toujours. waaw euh, comme ni ma ko waxee sànq rek muy Mbaye muy Bouli Bouli gis nañ li muy def vraiment ñu ngi koy ñu ngi koy féliciter. Euh, mbay tamit di def tamit gis ko ñu mais comme rek équipe de football mënuñu tamit jël fourchette ay attaquant rek tey bu ñu xoolee poste boobu Sadio fa jouer Habib Diallo def saison saison intéressant le ci France tey bu ñu Boulaye Dia championnat défensivement championnat bu Europe plus de buts euh, Nicolas Jackson ni poste donc li may wax ci loolu rek mooy que concurrence bi la concurrence bi mooy ak équilibre bu ñu bëgg am ci équipe bi xam ngeen ni xëy na équipe mënuñu jël seulement que ay ay ay ay attaquant mais tey bu ma xoolee tey composition équipe bi wax dëgg yàlla mënuma fa yokk beneen attaquant donc loolu moo tax mais comme dama ko waxee rek tey dafa am ay réalité Baye ne newu si ne newu ci mais ça veut pas dire que suba incha allah ba su ñuy def yeneen liste duñ ci nekk équipe nationale comme dama ko waxee rek buntu dugg la ak buntu génn la mais lu gën a importance rek mooy que ñëpp xam nañ que war nañ mën a en place ci équipe bi. Moustapha peut-être coach nga ñëwaatal ñu rek ci regroupement Lyon yi est-ce que ci benn moment ak manifestation yi fi jotoon a am li fi jotoon a jëngu ci réew mi yëpp sa xel demul woon ak fédération bi ngeen euh, dàq regroupement bi beneen bërëb euh, ngir am stabilité ak tranquillité ak tey lan nga am envie wax peuple sénégalais peut-être ma profité ci rek wax ci kaawu Ismaïla Sarr ak Elimane euh, tey coach nan nga nar a gérer euh, ñaari ñaari profil yooyu nga xam ne daanaka ñoo bokk poste est-ce que day am kuy toog ban man lay doon Iso la wala ñoom ñaar ngay boole. ah loolu de beneen question la mais. Ah, <laughs> lii rek mooy mooy question seytaane dégg <laughs> ben <laughs> waaw mais ay joueurs Sénégal lañ rek je crois que tey lu am solo muy Ismaïla tey comme na ma ko waxee sànq Ismaïla am na benn polyvalence boo xam ne même attaquant mën na fa football. Euh, Iliman c' est la même chose Iliman tey su ma ko bëgg su ma ko bëggee utiliser excentré mën naa ko utiliser excentré mais su ma ko bëggee utiliser même si dëkk bi sax milieu de terrain mën na fa jouer je crois que tey lu gën a am importance mooy que ñu trouver équilibre pour que suñu joueur yu mag yi yëpp suñu joueur yoo xam ne dañuy dañuy dañuy dañuy apporter en plus offensivement ñu mën leen dugal ci biir mais tout en gardant tamit équilibre équipe bi comme vous le savez équipe bu gis rek day ànd concurrence waaw euh, Ismaïla am concurrence concurrence euh, ak Elimane concurrence boobu mënuñ ko génnee non le mais je crois que lolu moo am loolu am euh, am solo concurrence bi da nekk concurrence bu bu saine rek waaw ñu xamni que ñun ñëpp ben nañu que kuy jouer

ñu yëg leen yëg xale yi nga xam ne jógee nañ fa nekk pour ñëw défendre équipe nationale bu Sénégal bi donc je crois que loolu moo am solo di ñaan yàlla vraiment jàmm dellu ci réew mi parce que jàmm ci la lépp xëj jàmm ci la lépp xëj yal nañu yàlla may jàmm. Euh, ñaari question yi waaw. est-ce que mën nga revenir euh, ci euh, le fait que ñu yàgg la nga ne doo jouer ak yenn équipe yi nga xamante ne amul tali bi au-delà du Brésil nga xalaat beneen mais également nga revenir sur le fait que Edouard Mendy gisuñu ko waaw Edouard comme ni ma ko waxee rek Edouard moom kenn du natable ay qualité am je crois que wane na ko euh, wane na ko Chelsea euh, wane na ko ci ci équipe nationale bi bu dee dëgg rek nañu war a wax mën nañu wax ne que performance am yu mu def mën naa wax ne que mooy numéro un sur euh, bu dee il est en cent pour cent mooy numéro un ci ci ci ci tanière bi fekk nag temps yi mu nekk ci ay difficultés mu nekk ci ay problèmes donc maag moom ñu waxtaan d' accord ni que le mieux pour l' équipe le mieux pour moom tamit mooy que mu toog ak famille am pour euh, justement récupérer régler problème au transfert pour que justement mon a encore ci équipe équipe nationale mais comme je l'ai dit, avec sànq ma confiance ci Edouard qui amul un sikki sàkk te xam naa euh, gardien pour Macle goal pour bu et la te kenn du lay kattan mu ngi ko mës na équipe nationale donc euh, tey ci difficulté yu mu nekk je crois que c'est important de ñu ñaanal ko ñu soutenir pour que justement mon revenir dans les meilleures conditions euh, concept waaw mais mais lolo tamit jaar-jaar rek comme ni ko waxe sans rek jaar-jaaru équipe nationale bi euh tay nek nañ ci niveau bo xamné war nañ mëna war nañ mëna jouer contre ay équipe yu mel ni Brésil war nañ mën jouer ay équipe yu mel ni France parce que lolo tam dégg na ko depuis 2002 euh, depuis 2002 mille deux ba tey danañu euh, a jouer France moi je pense que les heure bi jot na pour que justement ñu mëna jouer équipe yooyu Angleterre war nañ mën a war nañ mën a jouer parce que tamit progression équipe bi suba bu ñu bëggee gagner coupe du monde ci genre équipe yooyu la ñuy jouer donc je pense que niveau coupe du monde du niveau boo xam ne tous les quatre ans nga koy am niveau coupe du monde pratiquement bés bu nekk la semaine bu nekk la quinze jours bu nekk la en réalité pour que justement coupe du monde nga mën a am niveau boobu tamit ñoom bu ñu amee chance nga xam ne équipe yi nga xam ne ñëpp d' accord nañ ni que seen potentiel potentiel bu rëy la ñëpp d' accord nañ ni que équipe yoo xam ne la normalement war nañu gagner du Monde je pense que le Sénégal c'est important David. ah il y a à donc ba si ànd sax dañu amul problème pour réfléchir donc contre mu ngi si génne ak zone ñu tund bi te boo xoolee seen ñoom ñëpp mooy militaire la ñu ko convoqué kenn daan kenn dugalul a yaakaar wala peut-être relayer kii di euh, Pape gis nañu seen ñoom ñëpp ay défensif la hmm. par rapport à ça a nekk le lien am ban militaire nga yaakaar ne moo war a nekk le lien entre l'attaque et le milieu pour Sénégalais yi jeu bi ñu bëgg contre am ben, pas seulement contre, contre le Brésil, mais il y a le Rosé, il y a le Favelo coach. <laughs> non, mais l'animation Je pense que c'est muy Pape Matar il y a une qualité offensive. Euh, tout est question de positionnement, tout est question justement d'animation. De, de, mais je crois que axe de progression là, pour, pour nous, euh, justement, de pouvoir. Euh, disposer sur une jury de telle façon ils auront la plus du am c'est une euh, euh, expression Pape Matar toujours jour joueur défensif même si c'est vrai que euh, Tottenham pendant saison bi a joué jouer le rôle Bobu, je pense que ça fait partie aussi de c'est difficulté de Pab parce que c'est un joueur plutôt plus offensif qui est capable d'apporter à partir du 30 mètres et percuter les défenses arrière mais gis nañu ko année bi ba pratiquement il a joué euh, à à Tottenham très très très bas Lola laa doon waxtaan ak moom sànq je pense que tey euh, ci année bi malgré difficultés yu mu euh, en tant que jeune joueur loolu yëpp daf servir pour pour l'avenir donc continuer di liggéey concernant Brésil je pense que lu gën a solo mooy que ñu ñu rester ñun ak suñu identité ak ñun lan lañ def Brésil ñëpp xam un seen joueur ñëpp xam un niveau tey kenn mënu fi toog di wax affaire au niveau Vinicius euh, euh, ñooñu ñëpp xam nañ leen je crois que lu gën a importance rek mooy que ñun nañu concentré wu ci suñu philosophie ci suñu identité si nan lañ bëggee jouer match bi surtout difficulté yoo xam ne war nañ ko mën a apporter Brésil je crois que loolu moo gën a am solo parce que mën nañu wax Brésil fii ba suba duñu pare mais lu am solo rek mooy kon ñun nañu nañu concentré wu si ñun waaw. ok laaj bu mujj bi euh, Soda.

Euh, xëy na mën nañu laajte mën nañu xalaat ni que bu ñuy ñëw fii dinañ fi ñëw ak euh, motivation bu bu bu bu bu wàccu motivation bu tuuti mais comme ni ma leen ko waxee rek àdduna moom a demee noonu je pense que y a des hauts y a des y a des y a des bas carrière footballeur moom noonu la parfois day am ay moments yoo xam ne moments yu difficile la donc euh, ci moments yu difficile yooyu je crois que nañ soxla tamit ñu ñu jàppale leen ñu pousser leen ñu encouragé leen loolu moo tax tey groupe bi tey ñan ñoo fi vivre ay moments difficiles dans le club c'était était important tamit ñu rappeler leen justement pour que ñu ñu mën a dellu mais en tout cas li ma en tout cas si seen ñëwin fii ak entraînement bi ñu gis tey yéen seen bopp gis nañ ni que ñëw nañu fi vraiment ak sawarte ñëwoon nañu fi ak ak motivation je crois que loolu moo am importance ces difficultés ñuy dund en club